wa xam nga loolu da que niir vraiment bi ma tamit ak xol laa binde parce que sama malik comme je l'ai dit hein, je le dis partout et je me sama grand la dañu ànd ci ay combats yu bëri pour euh, yëkkati footballu ñu bokk di ci mu président secrétaire général vraiment aussi man ko muy ma États-Unis organiser vraiment def ci samay moyen nak meeting Ohio je parle sous le contrôle du candidat de Manko taxaw mom si bopam mo ne liñ ko defal Ohio bu ko États-Unis defone hmm day gagner élection yi effectivement on a mis beaucoup de moyens t-shirt casquette banderole euh, comment se dit affichage yeb jàppale ko bi koy def elage malik motax ma def ko parce que le monde militant euh, grand parti te mais sama grand le géejawaay la mo jité maa ngi ko taxawu man fu turu géejawaay jot dam sey avancer mais il est motax kérok bi mo génnee mu mu réagir réaction bu sedd bobu mo génn wax pour mu léral position maintenant nak après vraiment on se félicite si réaction bi mu def il a dit que ngorom mayuko ko muy dem di jàppale ci dañ koy ko donc il est revenu à de meilleurs sentiments mais n'empêche li nga wax ni celui de carte dafa am njëriñ moy thinking sink mom la américain yi di wax kay tay cellule des cadres boko amé moy lo xamné xam ne xamné bép ne borom xam-xam bu nek ci parti bi da fay nek lepp muy walu santé wàllu éducation walu droit walu pétrole ak lepp lu mu don problème bu am ci parti bu am ci Sénégal ci question yoyu, ñoo koy saytu wax seen xalaat tay ji juriste yi nek tay dans dans dans dans la cellule des cadres bu grand parti tay li, mënon nañ ko am sens de l'anticipation jiitu ci ñep xamné problème yi li ak lii lay jur ñu jiitu ci taxaw nga xamné li du len bett mais li am moy wane né cellule des cadres yi muy mom ak yenen parti yi bari duñu yëngu parti comme je dis ça se résume

en général loolu lañu ñu manqué moo tax toujours ñuy kafu wi mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. euh, euh, cinq yi wallaahi bettuma xamul tax bettuma dama ko wax bind ko nee naa leen parti yu mag yi wallaahi al azim booy may déglu ñu ñu may waxtaanul politique ñu may déglu bu limay wax <laughs> dama ko waxumako ngén démentir ko néna naa Khalifa Sall ak ak ak Karim wad bu leen xalat mukk ñu nekk candidat mënul nekk gars créé nañ les conditions pour écarter leen parti yu mag yi muy Idrissa Seck ak Gakou la cité bu grand parti man leen kenn dinañ ko cité parce que le jeu de Macky c'était clair c'est d'être en face des partis cabines téléphoniques parti yo xam ne mënuñu sax fessal Euh, kii nu mu tuddati euh, ay taxi clando yooyu la looyu la bëgg ñoo xam ne amuñu machine électorale parce que pour nga gagner dangay am machine électorale c'est très important une machine électorale néew ma nag ñoom ñi génn ñëpp amuñu machine munuñu ko mën nañ ko parce que yi bi muy génn 2012 euh, kenn xalaatu ko mais li nga xam ne présomption bi ñu am mooy Idrissa Seck ak maali Gakou ñoom ñaar dañu waroon bokk ci loo bi waaw buñ ñu bokkoon si loo doon na gën a neexal combat parce que boo jàkkaar rek ñoo xam ne ñëpp supposé nañ yaa leen ëpp machine mën nga leen broyer mais langue yi da dul neex élection yi du neex parce que du am engouement nit ñi ni ñu war a ñëwee voté loolu mooy wàññi toujours taux de participation di nga gis ñu ni la y'a quatre mille quatre millions de personnes inscrits wala six millions de personnes inscrits ñu ne la participants yi nekk un million six cent wala deux millions lu koy indi mooy maanaam du am publicité comme ñu Modou Lo Balla Gaye def seen combat yi tëkkonte bi fii waxante bi dalante bi mais loolu si boo ko indee si arène politique lu koy indi mooy ñu indi ñi nga xam ne dañu am jëmm représentatif sur le plan national ñoo xam ne bu ñu leen déggee ni ñi ñooy jàkkaarloo Macky Sall nit ñi dinañ sawar dina am engouement mais élection yi ñu jëm nii vraiment sauf surprise yi nga xam ne xalaat nañ ko si mooy Sonko ak le pur góomu mu am kii boobu yëpp. léegi bëgg

créé une condition yooyu on a créé des conditions yi nga xam la porte est ouverte ku mën a ñëw dina ñëw parce que boo xoolee depuis mairie Guédiawaye taxaw amul kenn ko nga xam ne mën na leen ne kii doomu Guédiawaye la à part Cheikh sar bi nga xam dafa assurer intérim maire cherif Macky Sall Cheikh sar mom donc Cheikh sar condition yu ko ñàkkaloo maire bi fekk fi mais vraiment man dama tok sama waay la nag sama grand la ñooy suñu aîné Limaamu Laay nit ku dëgër la dafa feeñu si mouvement euh, scolaire étudiant bi dirigeant la woon ñun ñoom la ñu mu noonu référence aussi si man wax dëgg yàlla mais li ko ñàkkaloo man mënu ma comprendre nga nekk doomu géejawaay ñu fal la meeru géejawaay benn at kese kese nga ñàkk ko mais loolu cuune laa ko mën a gisee bu dul cuune tamit mu am benn complot boo xam ne peut-être moo la rey waaw loolu rek lañ fi am donc mënuñu comprendre tey jii géejawaay ak nu mu de cadre nous nous regorger d'hommes compétents, de fils et de filles et de, et de, et de femmes valeureux. Hein? Ah, ñu jël ubbi bunt bi ba keneen mën a ñëw jël ko loolu suñu ñàkk fayda la wax dëgg yàlla il faut dire les mots tels qu'ils sont ñun la maintenant Aliou mënoon na ñëw sax gën a bëgg géejawaay doomu géejawaay mën na nekk mais teg fi mu war a teg doomu géejawaay dama gisul ne teg na leen fa Aliou nawloowul waa géejawaay si ni ma gisee muy comportement ak ñun nawloowuñ exemple pour moi vous que je maîtrise encore le cas de Guédioï Football Club. C'est club phare de la ville. Pikin, il y a des cinquantaines de millions à AS Pikin. Guédioï Football Club mérite 500 000 francs. Sur le plan des marchés, on peut comprendre Pikin, il y a un marché Guédioï, il a un budget. Mais Pikin, il a 80 ou 70 millions à l'AS Pikin. Mais Guédioï, il y a 20 millions ou 25 millions d'équipes léegi mom lim fi fekkone sax la subvention équipe bi dako koo parce que nañ sama ginnaw Cheikh Sarr doon na 6 millions mais nga wàññi ba 500 000 francs moi je fais partie des gens je le dis haut et fort qui avaient demandé à ce que le Guédiawaye retourne par voie d'issuer les 500 000 francs au maire de Guédiawaye bon c'est une instance démocratique nag mënoo li nga bëgg moy nek mais man lool sama position et je le réaffirme haut et fort en haute et intelligible voix j'avais dit que subvention buñ ko jël parce que li mbéj le sunu kanam benen as moy les acteurs culturels bi nga xam sama xarit sama dom ndey pap Maïssa Guèye mokay diriger amul satisfaction aussi sur le plan des activités culturelles à Guédiawaye mais ñaari activité yooyu boudé dee doomu aadama dafa yor mairie bi ñu ni bëgg na Guédiawaye ñooñu di yëngu sport bi ak ak culture bi ñi ko yoré ñu woné ni say pratique respecté woo leen joxoo leen cër mais kooku moy yogo wa Guédiawaye maintenant nak ñi nga yëg peut-être moy ñi nga bokkal parti peut être mais yow ñu la pour nga jàppale ñi nga bokkal parti dañ la jàppale dañ la fal pour nga yëngal participer à l'animation sportive participer à l'animation culturelle de la ville parce que loolu liggéeyam la moom liggéeyam la équipe bi buñ koy def c'est des associations privées ñu ngi koy defal liggéeyam dafa war a subventionner équipe d'autant plus que cette subvention là existe c'est des rubriques qui sont votées par le budget municipal mais je ne peux pas comprendre que les conseils municipaux yi nga xam ne ñoo dëkk géejawaay mënuñu imposer

bi ma ñëwee ma laaj ci waat ñun ma waa bureau la doon toog di recevoir rek mais ku ëmb sa sànqal ëmb sa kersa moo ñu daal il faut que doomu géejuwaay taxaw nag fippu taxawaayu taxawaayu góor taxawaayu taxawaayu gor taxawaayu garmi taxawaayu nit ñu gëm seen bopp gëm dëkk bi wara mën a jàpp si luy doxal dëkk bi buñ ko deful tamit beneen yoon tamit ni lañ def yaafuus keneen ñëwaat jël sunu sunu sunu mbir. waaw le football club bijou quoi parce que le football club dama la première année bi secrétaire général suis suis secrétaire général club à la deuxième année du club en 2002, je ba euh, le premier vice président de l'administration du club représente représenté club bi en 96 au niveau de la Ligue de football de Dakar Nek président district de football de Guédiawaye premier président district de football de Guédiawaye au nom de Guédiawaye football club donc c'est sama bébé la ñun ñoo créé dans la douleur Nous ko ñoo ñoo dans la douleur procréatrice yombuloon bi ñu koy créé tey bu ma gisee doomu Guédiawaye yëpp pas daw écarté daw équipe bi mairie bi daw ko ben courage yanu affaire bi daf may metti damay demander wa Guédiawaye c'est l'émanation football club des 45 ASC yi nga ne nous faisons plus de des 36 ASC légui ëpp 36 ASC nañ club bi ñu sommes club bi président club bi surtout parce que affaire bi bu réussir réussir parce que nous nek ci bi nga club club réussir génne talent caché yi nga xam ne ñoo nekk si nawetaan bi en fait loolu moo doon origine sax bi ñuy créé Guédiawaye football club c' était pour stopper xam nga màng bi nga xam ne jour Guédiawaye nañ ko doon màng dem si club yi nekk Dakar ñu leen di weer duñu football moo taxoon ñu créé ko mais loolu bu xasee ba am ba taxaw ba yàlla def club bi fu mu nekk nii mooy ya alhamdulilah rabbil alamin yàlla nañu yàlla yokkal sutura moo jël premier si d bi fu mu nekk ni Ligue bi na si nit ñi jàpp affaire bi réussir pour Guédiawaye waaw vraiment idée tabaxaat jumaa ji fierté la pour ñun waa notaire ak waa Géejawaay parce que jumaa ji yàgg na fii ñu bëri jàll nañ fi xalaatuñ ko pour ñu jàpp ci tabax bien vrai que maam Abdou Aziz si radiallahu taala anhu bi muy inauguré jumaa ji dafa ne woon nañ ko teg jullit yëpp def seen loxo mooy benn tracé bi nga xamné mo nek à gauche lool rek moy fausse note djuma bi parce que fi nga xamné ma maam Abdou Aziz fa la tek premier pierre bi je pense que tay buñ doon tabaxaat djuma ji foofu lañ ko won indi tabax ko fa ne serait-ce que pour que mémoire bobu nit ñi mën ko retenir mais tay dañu jël djuma ji tabax ko en juxtaposition avec ce bâtiment bi euh, ak euh, bi nga xamné mom la maam Abdou posé won premier pierre bi mu nek ñaari peut mu mel ñaari mosquée yu nek ci ben encadrement parce que espace bi bari na c'est vrai mais mënon nañu tabax fofu utiliser waat beneen espace bi dafa centre islamique bo xamné mën na former des jeunes pourquoi pas une université parce que l'espace dafa ngand il faut que ñu am ambition bobu tamit mais quand même bu né nit do do gisee lo xamné ne rafet na euh, nit def ko dang kay rafetlu rafetlu nañ vraiment président bi nu mu engagé woo euh, réhabiliter mosquée bi tabakh mosquée bi ba nga xamné ne na bisu fu nek ni mais li ñu gënaloon moy non ñu def ko fi nga xamné fa la maam Abdou Aziz si posé woon première pierre bi xawmu ma lu tax si les gens ont des explications peut-être ñu expliquer ñu lu tax ñu def benen mosquée à côté de de cette mosquée. waaw kaddu gu mujj gi bu njëkk bi moy moy encore une fois di di gërëm waa Guédiawaye info encore di leen ñaanal yalla fi nga xamante ni télé yëpp fi leen jaar nii ba egg si fi ñu egg yàlla teg leen fa mu gën a gaaw ngeen am ko parce que fierté géejawaay la boo gëmee géejawaay boo gisee waa géejawaay di yëngu si dara sa xol nga koy sentir danga koy bëgg danga nga siy kontaan donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla may leen rajo télé bu ëpp wal fajiri rajo tele buy taxawaay taxawaayu wal fajiri ni mu taxee woon nekk si côté askan bi ñëpp muurloo ko mu doon intérêt dëkk bi intérêt géejawaay intérêt Sénégal yëpp maintenant appel bi ñuy lancé waat rek mooy. que ni opposition bi taxaw taxawaayu góor taxawaayu góor mooy génn ci terrain bi parce que le problème c'est un problème de rapport de force le combat n'est pas un combat juridique encore une fois c'est un combat politique donc il faut créer les rapports de force nécessaires pour imposer des reculs des reculs objectifs significatifs au pouvoir en place loolu bu ñu ko defulee nañ xam ne li ñuy ci ñag bi la jëm dañuy deuxième mandat téyewaat réew mi pendant cinq ans encore te loolu ñaan ñu ko yàlla wasalaam. Euh, euh, merci